sëñ ci waa mos na sol yére jàggati rasulullah solaat ko moo tax danaa génn ci njaarim day xees perte ba mel na naar yenn saa yi mu génn mel na ku cib moom borom Tuuba waaye nee na su ma feebaree su ngeen bëggee ma wér na ngeen taxaw sama kanam ngeen ne Seydina Mouhamed sangu sang yi ndax ñu ne ko lu la lee rek Seyd Seydina Mouhamed mooy dem leen ubbi xasida mat la bul faw Seyd هادة بكل ذو فكر تضاء وهي وهودة هلا مخلف هلا يلو أهو اللون يا رسول الله Tusi. now, Muhammad sallallahu Say you are nani? bi wacc hidaayi kafaali albaaxi ma maata sarmada wa bi baqaay yasuru ahmada sama des li ma fi des mbégteem rasulullah lay doon ñu ne ko mbégteem rasulullah moom sëñ Tuubaa ne xasida yii ñoo tax ma fi des fekk xasida yaa ngi fi maa ngi sama mission taalibe yi ñoo koy continué ñu ne ko sëñ Tuubaa sa ñàkk faatu gi jaaxal na la ko waral mu ne sama ñàkk faatu gi sama xasida yi la xëddamtu bir xatti Seydina Mohamed keroog bi muy wàcc xuntu jeewal bi di gisante saay-saay bu góor mag Iblis sëñ Tuubaa nee na Iblis lu tax ma jaaral ko di ko yàlla bind sama kanam la ndax man sëñ Tuubaa kat yow ma alastu bi ngeen di dégg man sëñ Tuubaa fekke moom dafay nekk ayasi min allah inda jeewali iblisa isnadayte hobi yaawali iblisa cëpp ci kanam rooxaloo moom arrière ne ko xamul mën a ñëw tàqalikoo te tàqalikoo nga li koy firnde الذين سارقوا لقمتي فلهم الديار والجنة سيدي وانا نجي زيارة كما لكي ألا يوم القيامة بني ديك أدنى الفردوس أنا نجي ألا أدنى الفردوس كي سيدي وانا بني جاي ديك ديك وفي على نبي عثمان يسفهم في سبيلنا ألفا كلها قلنا Tuubaa defal na ma tawféex yi lu wax sëñ Tuubaa deful ko bind ma xam naa tawféex yi sëñ Tuubaa yooyu moom borom Tuubaa Sëñ Tuuba du sax Sëñ Tuuba daa am ñetti parti yu bokk Sëñ Tuuba yenn saa day dox ci nit nit lu ay taxmis ay astaghfirullah bi Sëñ Tuuba da koo bind Money, My Sëñ Tuubaa kenn mënu koo jam ci diine mukk Pablo. sëñ bi damaa moom misaal la ci sëñ Tuubaa kenn daa far xam nga far la sëñ Tuubaa daa far wala fu mu neex demal fu mu neex doo gis ku mel na daam kenn bàyyi ba sa daa ka taaloo mu sa baa caaloo mu ta daa gàggante gànnaar sembal waa fut ràmmeeloo doom soxna yi diw la mbaaxaan wóote di fi sabar kooku far na sëñ Tuubaa mooy ko far ko amul Eu não vou kële néew buñ tàbbal ci bamb li mu wër lépp luy gàccoon benn idée lañ amoon moo feeñ islam going.

sunna te far nañ ko newu ci même bu dee benn tendement wala benn xaw garab mu tuuti tuutal ko continuer ko mu ñëw ba ci buntu ñu ne ko foog nga summi see arab te déedéet sëñ ci waa mooy arab te mënu ko dégg du ci mën de déedéet du mën de du Seydina mooy toog di waxtaan déedéet Seydina bu xasee ba toog li mu sol sëñ ci waa ko sol li mu wax sëñ bi koy wax du moom mooy wax fungu kya muyaga sijua métti bi mën naa ñëw ndax moom ci coote attan na malaka ni maalik kullu jaay wa kullu masjid minal mu jaay yàlla ma ma jàkk billahi ànd juróom-ñeent yi moo kan alxuraan soo ñëwee alaaji nga téye ma wax ma ku ma ko nekkewul mënoo koo xam sëñ bi ndax yàlla mën na lu ne zaalika fadlullaah yu'tiihi man yashaa wallaahu zul fadlil aziim waaye yàlla suñu borom li ko gën a neex lan la mbégteem Rasulullah ci seen tubaab lay bëgg Cheikh Rafa ndax ñëpp jël la fa nekk seet la war a يوجع أخرى من الخلاجة من سبصب يا أيها الذين آمنوا هل أتلكم على تتقون من عذاب الغيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم لكم إن كنتم تعلمون. يديك أنا وخمنا نبي seen a xool ne leen aay ma wax na ba jeex dégg ngeen la fa yàlla wax de moo tax benn mbindeef mbindeef mooy Sidi Ibrahima Fall mooy milliardaire bu mu compte ban seen seex jëmb Fall su ko seen seen seen seex jëmb Fall su ko seen mu taxaa joxee ndigal seen seex jëmb bu ko seen mu taxaa joxee ndigal kay wax ci ndigal dañ koy neexal xam nga foo ko jëlee alaat ci maamam Sidi Ibrahima Fall Sëñ Tuubaa bu daa yónni woo nit yónni ko demal wane ma Sidi Fall su ñëwee dal na ci su ñëwee Sidi Fall da koy seet ndax nee na ko Sëñ Tuubaa yónni kenn laa yónni waaye alaaji dégg nga ma ni Sëñ Tuubaa di yónni alaaji xam nga Sëñ Tuubaa bu daa yónni ni mu yónni danaa xoolal leen ma ku mokkul alxuraan yónni su ñu wëree kër gi ba mu daj du fa ñàkk ñu xool ñi mokkal alxuraan sëñ bi du leen bëgg c'est un naaris kooku moo xam valeur alxuraan mu yónni mu ñëw maam Sidi Ibrahima Fall lu ñuy ngay dégg ñëpp la seew lu ñuy ngay dégg ñëpp billaahi sëñ Fall moo atte lamb ay ma fi wax léegi soo soo fi nekk bu jàllee ah. ko ca toog soo paj yoo wax sëñ Fall la fa yàlla wax moo tax sëñ Fall rek moo mën a tuddee Lamp Fall jumaa Sëñ Fall rek ko mën a tudd kenn mënu koo tudd xam nga ndax dañoo toppante ci alxuraan toppante fu bëri ñu ñëwaat fii ndax xool xalaat mbir yi daa leer yàlla kim njëkk a yónni aadama la sëñ ci waa ki njëkk a jébbal ci moom sëñ aadama gi yàlla yàlla benn xarit la Ibrahima la dafa leer wax naa ko ne isxaala rabbuka aslim muxtaar ilaa ilal xadiimi bilaa kibri wala nasab سيجوا بين خلدا مو إبراهيم فان يلا قوهم موسى كان لهم لا سيجوا قوهم موسى كان مليارنا تعرف ديونهم يلا لين لا دفنهم نيو مو جلي سيدنا محمد سيجوا لين لا دفنهم نيو ما كان يمكن سنت لما يلا ما كلو توبا كيف بدي أنا لجلس يبلغ يلا لين لا دفنهم نيو سيجوا milliards yi moom compte ba maam si Anta mooy ki nga xam ne si bi ko sëñ Tuubaa mooy dëkk 18 ans la maam si Anta mooy ki nga xam ne ak noobul la woon oto bu ci laa jënd douzaine la ci jënd maam si Anta mooy ki nga xam ne boo demee màggalu daaw sax mooy ngeen di ko sëñ Tuubaa ngeen si woo ndax sëñ Tuubaa bi mu ñibbi si waat weeru koor cinquième jour weeru koor lu ko la ko fekk mu jàll sànnu si keroog bi mu war a gën a ji maam si Anta maam si Anta ngalam googu ci lislaam moo ko mosoon bis bu jot fukki nag ak ak ak juróom xaar juróom bëy ginaar day ray di ray ba xamul lu muy ray mu tëral taalibe bu ndax askamara askamara ndar la dëkkoon bokkul ba askamara bu ndar bi séewee seeti woon keroog yu ko tëralee ba koo rey seen ci waa goreel ndax bëgg gi ma am benn géwél bi naan ma tabaramba mu yëg ngan gi nee na koo bëgg a fekk mu ñëw daaru salaam xuus xuus ba jàkkaarloo borom Tuuba alaaji ma jox la portrait borom Tuuba alaaji sëñ bi bu daan nawet mbaxana mii ma teg sama kaw lay teg ci kaw mooy mbaxana curu ca mi ñetti kaalaw doon kaalaw si kir ba ku doon bay lang àjjuma ba àjjuma da koy fi xam borom Tuuba mu nekkoon ci diggante xees sàkkee su ne laa càkk nga yaakaar kanam gi yëpp bët su ne laas kanam gi yëpp mel ne kaw mu jàkkaarloo borom Tuuba ma tabara mbaay ne ko càkk xool ko ne ko bàllaak maaram ay saajo fa laa bëri saw fas ku fa mos a toll jàppoon doy na la métti dégg ngeen la wax de bàllaak maaram ay saajo mu toogaat dem fu nam daal mar na sëñ Tuuba bi ñu bisee 1902 1903 bi ñu ko jël si daaru mar naan ni ko fekk mu taalif xasida rabbi bi ma gis keroog bi ma dee toll ci yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadi irham jami al wada yaa haadi rada tubaab yi na jaran ci kanam mu ànd ak ñoom war a dugg fu naan gànnaar ala billahi wallahi bu sëñ Tuuba liggéeyoon ba bàyyi te demul gànnaar ñu ne sëñ Tuuba demul ci naar sëñ Tuuba bi mu ñëw ci yoon la ko yàlla xamal ne gànnaar ay borom yi xam-xam dañ faa nekk te daaw ñu toog bàyyi woon te loolu war nañ koo yeesal ndax lil Moustapha nawaytu waaye jaddi sunnatoo xaraaw yi neex na mu dem fa cinéma li nga xam ne daa jaaxaloon képp kuy borom xaram sëñ ma jëpp paxa sultaanul xaari fii na ma ne sëñ Tuubaa antal lazir antal xadim fadul lazi laa yunahu wala yutan juma képp la limaale ci përi te la ko dañoo dof rek waaye xam na ne course bi fase départ arrivé ci que bi la ki bokku ci course bi mooy kim per o que yaa a gaaw kookoy sëñ Tuuba sëñ Tuuba li que li ngay que é ko jëkk wax keroog bi may liggéey mu é bi ma é père pour yàlla si yàlla rek ma seen jël loxoom bi é o ko teg ko sama é ne ma Ahmadu alir bi ngay daw daa fort soo defee nii jaam ñu du Allah allahu xajaxala nii que bil Mustafa li si xëw teg yàlla sëñ bi man jiital naa la année bi boo ko defee nga jaam ci njëriñu fu lay seen waaye jiitalu ma la nag pour ñëpp déedéet dama la jiital ngeen di leen a texe àdduna ak àllaaxira xam na man yàlla maa la jiital laqad sabaqta fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin asaqu mawla kenn du sëñ Tuubaa kenn du sëñ Tuubaa alaaj footballeur laa woon sëñ Tuubaa ma defar tànk kenn du sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa kenn du moom jiitu nga borom mu def ak rasulullah ak lépp ba pare Sénégal monsieur Touba di fekk si moom ñu jëloon ko jiitaloon ko am yow nag xam di sàmm di dem ci àll sëñ Touba nee na jàpp naa ne nit ci yàlla heure bu génne yàlla lay wuti Sénégal ba sëñ Touba di nga fa am ci ñu dem seen kër ginnaaw mu leen nag bi bu leen taaxal kër yi ak tànk nag bi ci fajar gi leen dégg muy dox soxla sëñ Tuubaa wane na jiite julli ñu nag ñu julli ci biir julli gi am kuy wax ci xelam naan li mu def est-ce que du erreur nit ku ñuul jóge ba Sénégal yi ñu jiite julli sëñ Tuubaa daal sëñ ma tontu ko ne ko sama yonante bi moo ngi wax ak ci man ci julli nee na ku ma jiite moo la jiite naar bi ne ko jiite tontu ci xel ne sëñ Tuubaa maa ngi ko kan moo ma sëñ Tuubaa ko sa bisu ngéem gàtt bi la waroon a rey dañoo fexe day fekk gàtt bi mu faar ndax gàtt boobu bu nekkee xale dañ ko doon nàmpale soo xatee te ñu war a tuddee lu lew nar ba xaatu moo njëkk a jébbal sëñ bi sëñ Tuubaa dafa ñeenti at jaaxal xam na ne muy dund du bëri sëñ Tuubaa yow xam naa li ngay xaar man sëñ Tuubaa du ma sëriñ bu naan taalibe fii laa mën a yem ak sama taalibe suñ faatale woon ci seconde ñu jënte leen ci seconde ma rambandoo leen ci seconde naar bi xelam doo ko dal ndax rambu yàllaa ko jëkkati ndax wa anna laaha wal malaayikati wa anbiya wa saalihiina mu'miniina ñoom ñooy rambu Cheikh Diop alaaji Cheikh Diop nekk àll bu lëndëm bu kër yéeme tubaab yi yóbbu fa seen tubaab ngir ñu bàyyi ko kenn mën koo toppat yoonu murit di yokkoo Cheikh Diop suñ xëyee ñi jébbalu jaaxal leen mag ñi di ko fekk ci Diop ko góor a waay jërëjëf jërëjëf mag ñi di dox fekk Cheikh Diop ci mag yoo lu sëñ bi def def ko ñu ñëwaat ci tubaab bi ne leen de fekk naa ko benn sëñ tubaab juróom fukki nit ñamoon dina leen ko yóbbu ñaareel ville suñ ko ko yóbbee nit ñi dinañ ko bàyyi dem wuti at xam sëñ tubaab boo ko bëggee dëgg dëgg bu yàggee at ñoom moo lay suuf billaahi ñu bindaat ko mu jeexal mu ne ko bindaat mu ne ko li ma ci jublu woon leer ndaxte وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منذ ما ومنك yàlla yomb ku dëkkaale bu su yàggee nga jël korom dëkkandoo mu mel noonu rawatina bu siy xam nga mu nekk fa man ñi di réer di ko fekk. ko fa ba kay su wadina mu jigen nan ko soxna tahiratu su ala sa 5 ans la tafsir alquran man alquran xam ko dégg ko bàyyi fi lépp na fi ñuk wéy sëriñ Tuuba fekkante moom fii lu jébbalu dem ay mbokkam diñ ko ne ko yow ni nga mel ci alquran ak fa nga egg ci yàlla lu tax ngay jébbalu sëriñ Tuuba mu ne Seydina Jibril moo ñëw ci man ne ma képp ku jamono nekk sëriñ Tuuba te joxoo ko sa bopp ëllëg yow nag xam ne yàlla ne dëkk boo fi indi mën na ko soppi xel mu nekk diir ak woo moom seen jéeri man dajaloo mu ne leen woote bi ma doon woote bu fekkee woote addu la su ma faatoo njaaram gii lan may génn ci wetu sëñ ma siré loo sànnuus sëñ ma siré da sëñ mu jéem jullee ci suuf bu fekkee woote adduna ak man seen waa dam sugu moom laa woote su faatoo ca kanamu jumaa lan may génn ci wetu ku tontu ba waa kër jóge sëñ Saliou ci lay balaaya ji yi ne sëñ Saliou daa xóoyal di ko xewlu jóge na xel koom jëm si mu ñëw ba yoon benn xorondom tax ci yéreem sëñ mu tourné mu delluwaat xel koom jël xorondom bi bàyyi ko fi ne soxor bi sàllaaw xorondom boobu de bëgguma ko yóbbu

moo jëkk a jël addiya jox sëñ Mourou Moustapha gerte gi mu jëkk a bay di juróom-ñaari kilo dañ ko jox sëñ Mourou Moustapha mu toog ci benn ñam ko salaa da koy jëf li di yàbbi di bunu si di gàllam ko nga salaaw lu jëm sama xalifa moo ko jëkk a ñam moom sëñ Saad xel ko daara ji li muy yaay yàq sëñ Saad bu daa ñëw bu dugg coow rek bu sëñ Saad ak seet ci daara suubee seet ko rek su ne asalaamaaleykum Serigne Touba moom sëñ Saaliw 1988 Baax dex moo fa nekkoon rajo Tuubaa yi bi Tuubaa nekkee foore su daan naan ci comme sëñ Saliou la daan naan dama ko wax ñu nekk ca barab bi ay mag xam nga nañu ko maa ngi ko wax ñu bëri billaahi yàlla def ren àjjuma gi njëkk a taw Tuubaa fekk ci barab barab bi taa li wër barab bi yëpp di ndox ne ci xamukaay xaw ci xamukaay bi laa ko xam damaa nekk ci yoon bi dox ko moom xam ne mën naa laa yóbbaal lii fi doon def ni du luñ dem jàngi fenn waaye sax dañoo taxaw si kanamu sëñ bi dafa def ko ndax li ñuy wax xam nañ ko te maîtriser te képp koo xam sëñ Fallou sëñ Mourtada ku ne xam na ko ci yoon damaa ñëw keroog alaal mu woo mu ne mu ne maa bëgg a waxtaan ak ma siiw ma waxtaanal ko ba mu tuur xew man xaamee ma base bu bëri nit ak bu amul nit kenn nit mën nañoo toog di wax ci mbaaru sëñ Tuubaa Rasuul jëmm nag daa naqaree sëñ Tuubaa moo li ma fi wax ni koo fi andi yoonu murit muy waxtaan mun fee wax lu romb lii mu fee wax dëgg bu baax nit da ngay gëm sa bopp gëm sa bopp nag buñ koy sa bopp rek yaakaar déedéet xam sa bopp gëm sëñ Tuubaa jàppal ne boo demoon ba mag suñ la déggee laaj si Sëñ war a wax murid war ngaa am gàcce ñu jox la micro di la laaj Sëñ ngay xiin xiin xam nga foo jëm a toog ak ñoom di leen waxtaan si ñu tuuti loolu ñoom loo xam ne du ko du dañuy baax kenn du ne alaaj seen Tuubaa rek moom seen Tuubaa la mbir mi du ñun seen bi la doo woon nit ñi seen Tuubaa lañ bëgg la nga leen di woon sa bopp amul njëriñ lii nag du man maa ko sax déedéet sàkk ma ngir ñëw ngir waxtaan wala déedéet dëkk bi du ma leen bañ a dara waaye nag bu ma cër xëpp pass a ndax a xam naa fekk Dakar ànd ak waa mu ñëw ma jaar ci pàkk ci lu jëm ci kaw gi ci Masaalikul Jinaan laa Tuubaa laa jógee ma fekk am kàddu bu neex ma wax loolu ma ko waxee bi ma demee Tuubaa am lu ma jàng lu bëri ca ginnaaw suba ga la la daral mu daral kon am na ci loo bu la ko mag waxee ci yoon jàngal ko war doon ci yow ndaxte soo sanu ñi nekk ci cant ku ne boo ñëw sa oto fa leen koy gaar barki Serigne Saliou ndax xamul tax ki ñuy wootee cant yi muy Serigne Saliou ne tuloo bi mu ñibbi àddina da doon yóbbu yóbbal sëñ ci waa toog naa moom ak ko naan soxla bu su waajur Serigne Fallou naan maam Thierno ndaama daaru Ibrahima lazi lam yu faarixi laa fi sixaarixi wala fi kibaari ma imaam alaaj ku mel ne maam Thierno ndaama daaru laa far alaaj maam Thierno li sixaaru seen jubaale ci tukkeem ndax maam Thierno mooy ki nga xamee ne si keroog bi mu waree ñëw jamono seen jubaa daw seen jubaa benn yoon la mos a dawee ci suuf benn yoon mooy bi Thierno ñëwee jamono Thierno bi waree ñëw jamono saxaaba yi dañ doon jëkkante moom di ko tegal garab maam Seyna Sumeer tegal na ko Seyna Xarit Seyna Hamza Seyna Miqdaad Seyna Sumeer Ababacar Ousmane Khalil Omar Khalid ibn Walid saxaaba yi di ko tegal garab di ko tegal di mu ñëw sëñ Tuubaa loolu ñu doon toqantal sëñ Tuubaa ko bind Ceerno ne sëñ Tuubaa ko jàngalee am Ceerno ne bu ko sëñ Tuubaa daa jàngal suubee kaamil bi benn paas la ko ci li ci des day fëgg boppam ne ko Thierno li ci des moo ko dimbali moo ko Thierno nee na li ko sëñ Tuubaa jàngal lay gën a mokkal sëñ Tuubaa war a génn dénk ko njaboot ci at yu néew maam moo def borom sàmm ko ma Thierno tubaab bi tànn këram juróom yow na ko tab daar ji mu ne ko tab daar ji mu ta nekk tuxal daar ji moo man moo tax diiraa bi sëñ Tuubaa nekk ci góor gi Thierno sëñ Fall sëñ Maodo Moustapha mu leen di jàngal moo xam na ngor ga ak jom ga ak fit ga maam Thierno mu nekk fii seen bi nekk fa nekk liggéey Thierno nekk boole ci di jàng boole ko tumburaan moom moom Thierno ndénkaan ak seen ciwaar yi bakkan bi la ci tegoo seen ciwaar bi ñëpp si loolu seen saa jéem ci ndar moo ni maa ne ko la ma loolu yow keroog bi mu koy wóoloo bi mu ñëwee bi mu jàkkaam sëñ Tuubaa xewal day tuuru sëñ Tuubaa di ko xool naan ko Cerno yàlla bég na yonante bi bég na Rasulullaah bég na Cerno ëllëg yow ma xew fu ñu may fay dañ lay fay Cerno soo toogoon ma dem di nga xam doon ko man aka gone am Cerno 1912 ay doo ko def sil nooré nii borom ñaari leer Ousmane keroog bi mu ñëw andaalewul lox sëñ Thiaw dugg te di fa loxo ne leen Ousmane a yàkkante Ousmane nga suñu laaj ma moo ñëwaat kër maam Thierno Ousmane keroog bi mu ñëwee jamono ak kii la sëñ Thiaw jël karaw sëñ Thiaw yu dagg ak karaw sëñ Ousmane sil nooré nii ne leen boole naa ñaari leer ñu benn leer moo tax keroog bi mu ñëppee àjjana sëñ Thiaw da ko tiim na ko maa Ousmane waxoon nga wali moom ngir ngeen mën di jot suñu yeneen video da ngeen di abonné fii ci seen seen YouTube DBT.